peuple bi xam nga li xew ñun dañ jàpp ne pour at mi en tout cas gouvernement Sénégal mooy responsable li tax mooy responsable mooy enseignants yi li ñuy kaas mooy loo xam ne gouvernement Sénégal moom ci boppam moo toog mu ne mën naa def lii dinaa ko def bind ko waay waay gouvernement soo nee dinaa def nangam mais fexeel nga def ko enseignants yi laajul lu bees li ñuy laaj mooy li ñu leen yoreel ñu jox leen ko gouvernement Sénégal xoolal ministres yi députés yi ñoom ñëpp. est-ce que am na kenn ko ci xamante ni Vincent dina ko yoral dara balay jot délai bay jot ñu jox ko li mu yoral yëpp pourquoi nag ñi nga xam dañ leen di yoreel te fekk ñu liggéey ba pare du leen jox ñu yoree nag donc mënuñu d'accord te loolu ñun dañ jàpp ne njubadi la vis-à-vis enseignants yi cependant ñu ngi rafetlu bu baax a baax a baax dénouement bi nga xam ne am na nga xam ne suñu kilifa diine yi dox nañ ci taxaw ci ba enseignants yi nangoo lever seen mot d'ordre malgré que dañ tooñ ñu woo gouvernement Sénégal ci muy respecter doom muy respecter engagement bu ko signé parce que loolu mooy tax population yi commencé amee confiance ci moom mais de boo demee ba nga xam ne yow loo wax doo ko def loo engagé doo ko def mais population duñu la faale ci parce que dañu xam ne amoo kàddu te loolu ki ci jiitu mooy président de la république yàggul dara yéen ñëpp gis ngeen ko fii pendant quatre ans ñeenti at fu ne wax na ko fa damay wàññi sama mandat mais gis ngeen ni mujje alors su ne njiitu réew mooy def loolu gouvernement su ko defee du bettaate mais loolu du jëm kër te kenn mënu ko nangu kenn mënu ko accepté kon loolu ñu koy ñaawlu bu baax. Euh, OFNAC xam nga vraiment ñoom comme ñoom lañ dénk ci réew mi ñu liggéey wàññeeku ci réew mi wax dëgg yàlla bu ñu liggéey at ñu taxaw ñu génn seen rapport wane ne ah at mi kat ñu liggéey 2015 lii ak lii lañ gis. bu leen neexoon ñu ne ñoom dañuy xaar bu président recevoir leen palais ñëpp ministre yëpp taxaw ah Sénégal yëpp gis leen bala ñuy dem di publier seen rapport waaye gis nga xaaruñ loolu. dañu jël seen courage à deux mains xam ne lii seen liggéey la te defaluñu ko nguur Sénégal population Sénégal lañ koy defal ñu génn waxak population Sénégal wone seen liggéey lan la mu nekk liggéey boo xam ne ñu koy rafetlu loolu di leen jaajëfal di leen ñaax pour ñu continuer ci yoon boobu parce que li ñuy def encore une fois defaluñ ko président ñu ko nguuru Sénégal askanu Sénégal lañ koy defal ñu yaakaar nag ne résultat yi nga xamante ni génn na ci liggéey bi nga def nañ ko ñu jébbal ko justice pour mu war cee am nu mu ci taxawee ñu yaakaar ne gouvernement Sénégal dina bàyyi justice mu def liggéeyam ba fa mu war a egg képp koo xamante ne leer na ne yow da nga luubal alalu Sénégal justice mën a jàpp taxaw yow fu mu war a taxaw képp koo xamante ne defuloo dara ñu mën la bàyyi nga ñibbi sa kër. mbir euh, mu doy waar la maanaam Sénégal dafa xaatim ak Union européenne nga xam ne ñoom dañu boole seen doole ñoom ñëpp mu nekk ñaar fukki dëkk ak ak juróom-ñaar la juróom-ñett euh, pour ne léegi. ñoom war nañu mën a dugal seen i seen seeni seen i seeni i seen i seeni seen seen i seen i seen produit ci biir Sénégal bi duñ fay douane lu ca bari seen produit war na mën a dugg loolu nag poser problème bu mag a mag a mag a mag problème la boo xamante ni su fekkoon ni assise nationale yi war nañ discuter loolu ci lu sérieux la loolu ci question de fonds yi war a discuter la bokk parce que jeexital bi amul kenn koo xam ni nga yow seen doo ko yëg xanaa bokk ñi nga xamante ni ñoom seen gafaka fees na. te du seen liggéey la feese euh, lu tax xam nga union européenne dafay kattanal ay béykatam di jël alal di leen ko jox pour ñu gën a am doole pour di mën a def ay récoltes yu nga xam ne day gën a ñoŋ di ko jaay ay prix yu nga xam ne day gën a yomb kon ñooñu su fekkee dañ leen ubbil suñuy bunt ñu dugg biir Sénégal lii xew mooy ne bu seen produit yi ñëwee ah produit yooyu kay day nekk qualité waaye tamit day xëy na sax mu gën a yomb suñuy produit su ko defee yi nga xam ne moom la ñuy defaree ci biir dëkk bi fii day am difficulté pour jar béykat bi nag su fekkee béy nga noo jaay artisan bi liggéey nga la nga liggéey moo xam daal la moo xam leneen moo mënoo ko jaay entreprise Sénégal yi produit nañu moo xam ay tissus la moo xam leneen leneen la mënuñu ko jaay mais li ciy mujj mooy da ngay tëj kenn du liggéey ci perte loolu su amee lu muy jur mooy ne Sénégal d'abord emploi de un problème parce que entreprise yi ñooy créer emploi su ko defee actuellement Sénégal xam nga ñu ngi ci euh, lu ñuy wax euh, euh, ñetti té ñetti téeméeri junni ay xale yoo xam ne am nañ diplôme di laaj liggéey 300000 emplois 300000 demandes d' emploi contexte bu mel noonu yow li nga war a def mooy dooleel sa entreprise ubbi ay yi nga xam dooleel mbéy mi dooleel artisanat ba nga xamante ni ñooñu seen koom-koom su yokkoo liggéey bi gan fa bari xale yi man am fu ñu liggéey waaye au lieu ngay def loolu ngay def le contraire loo xamante ni day tax ba ñu seen kattan gën a néew. donc ñu fermer boutique a gën a ñàkk loolu dara gënu ko garaw Sénégal dafa laaj ñu xam loolu mu leer nañ seen bët président signé na ko pour Sénégal Abdoulaye Wade bañoon na ko Abdou Diouf bañoon na ko président yemul ci signé ko nee na parlement Sénégal dina ko dina ko yemu ci liggéey na en tant que koo xam ne moo doon jiite CEDEAO ba ci pays yi nekk CEDEAO fukk ak ñaar ñett ci fukk ak juróom daan ki euh, wala juróom benn val daal di daal di ko daal di koy signé ñoom itamit loolu mooy tekki ne non seulement mbir mi coono bi du yem ci Sénégal rek mais day law ba sous région bi weccoo gi nga xamante ni marchandise yi waroon na di dox ci biir sous région bi mais loolu ci boppam day mujj di dakk parce que sous région boo fa dem da nga fay fekk produit européen yoo xamante ni moo gën li jóge ci beneen pays moo ko gën a yomb su ko defee yooyu lañ jënd donc day sax na saxal union bi en réalité donc mbir la boo xamante ni man dama ragal ne président wax dëgg yàlla ah wax dëgg xanaa bi muy bu muy loolu xanaa xanaa moom moom moom moom tey ko te wax dëgg yàlla moom comme mi ngi nekkoon Ablaye Wade Ablaye bañ ko suñu ba tëdd ci naaj bi waroon naa xam ne Ablaye Wade ñàkk ko suñu ci neen Ablaye kenn gënu ko mu bëgg développement Sénégal même su fekkee yoon bi jaaroon desoon na kon moom war na xam ne loolu du lu baax lan moo tax mu ñëw tey président bëgg ñu lu mel noonu te ma yokk ci dara gis nga soo xoolee euh, président Abdou euh, Macky Sall depuis bi mu ñëwee ba léegi économie Sénégal. Ablaye defoon na ci effort yu mag pour fexe ba nga xamante sénégal sénégalais ak seen entreprise day gën a am teewaay taxawaay ci économie Sénégal mais tey ku ne gis na li xew ay secteurs yu bëri yoo xamante ni tey ab euh, Macky Sall président Macky Sall daf ko delloo entrepreneur étranger yi particulièrement français yi muy loo xamante ni nag daani kii da ngay wax ne même su fekkente ni ñooñu liggéeyoon nañ ba koom-koomu Sénégal yokku mais koom-koom bi seen loxo lay yokkoo la cay jur lu ci gën a bari dañ koy delloo seen dëkk yi. alors que bu doon entreprise Sénégal la la cay yokkoo fii lay des ñu créé ci yeneen entreprise mu jër yeneen liggéey kon mbir mi lu garaaw garaaw lu ndaw et dafa laaj sénégalais xam ko bu baax ñëpp taxaw wax pour que mbir du du avancer parce que sinon conséquences yi kenn dinañ ko gis. parce que wax dëgg yàlla moom ak équipe naka jekk sax moom wax dëgg yàlla du ñu deñ di taxaw di taxawu environnement Sénégal écosystème Sénégal. Euh, jaww Sénégal ba nga xamante ni yàq-yàq bi dañ koy mën di identifier di xeex pour bu mu yokku xam nga yàggul rek génn na fi mu wax ne euh, fële ca Casamance euh, wane ay photo yu koy wane ne am na ay étranger yoo xamante ni dañu ñëw Sénégal di dagg suñu forêt di ko sàcc di ko yóbbu loolu nag wax dëgg yàlla gouvernement Sénégal ci boppam moo waroon am farlu goo xam ne dina ko gisal boppam taxaw ci waaye comme moom déployé na ay moyens ak liggéeyam ak équipe ba gis mel noonu. loolu foog ñu jaajëfal ko foog ñu jaajëfal ko di ko ñaax aussi mu continue def liggéey boobu xam ne réewam la koy defal waaye aussi ñu ñaax Séné gouvernement Sénégal ci ñu taxaw jonn nag pour que loolu nga xam ne mu ngi xew ñu takkal ko ñu def plus de moyen ba nga xamante ni loolu dina mën a yem parce que ku ne xam ne nag àll bi lu baree baree bari ci koom-koom Sénégal foofu lay jógee ñu baree bari ci Sénégal ci paysans ak ñooñ ci la ñuy dundee kon bu ñàkkee solo. dundu ñi nga xam ne ñoo ci dina day day am problème kon nag mënuñu lu dul rafetlu lu mu liggéeyam waaye ñaax Sénégal ñu gën taxaw ci loolu